bil qalbi sëñ baa ngi ko tënkee chahru ramadan hada ak inna uh, laa inna allaha mooy xasida ak ahbabtu rabbal alamin boobu ñu koy jàng ci sëñ mu Masamba chakartu bil qalbi ilaahi bi ñu ngi koy jàng ci daaju sëñ Mbay Jóob yaa sayyidi bi ñu ngi koy jàng ci daaju ku ñuy wax sëñ Moodu Caam ak xasida gu ñuy wax uh, tuxfatul awwaa bi taxmiit astaghfirullah te mooy taxmiit ñu ngi koy jàng ci daaju suñ sëriñ Moustapha Diop ak euh, xasida gu ñuy wax widaadi wa shukri sëñ baa ngi ko tënkee wazkurullaha fi ayaamin maadudaat ñu war koo jàng ci daaju sëriñ Moustapha Kebe ak itam xasida bushra lana ñu war koo jàng ci daaju suñ sëriñ Masamba ñu tënkee ñu jeexale xasida gi ñuy wax farij bi jaahil Moustapha yaakaar naa programme bi loolu la doon waaw jërëjëf sëñ Zewna mel na ni kon xëy na lim bi ngeen di jàng ci xasida yi bari na waaye dafa mel ni diir bi ngeen di jàng tam soppikul waxtu lay doon. waaw noonu nga ko waxee noonu la demee waxtu yi nga xamante ne moom lañ tënkoon ci jotaay bi daanaka moom lay continuer programme bi dara du ci changer yaakaar naa noonu lay noonu lay demee. waaw jërëjëf sëñ Cheikh naa mën nañ la bàyyi nga delluwaat ci njàng mi defe naa li nga xam mooy programme bi am jërëjëf kon mën ngaa dellu ci kuréel gi mën nañ ñu ngi lay xaar kon dégg ngeen ko ci làmmiñu sëñ Cheikh naa Seck kon ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi tey mooy daaray Touba Hizbut Tarqiyyah bu daaray Touba ñoom ñoo yor njàng mi tey ñi ngeen dégg itam ñuy jàng di waaj a gàttandu si sëriñ bi mooy kuréel 1 bu daaray Mbàkke kon lii mooy programme bi ñu leen andil tey euh, muy njàng moo xam ne tamit ñëpp yàkkamti nañu teewlu ko mu yegg si euh, gis ngeen ko tam ci image yi mooy kuréel bi gàttandu sëriñ bi nii ñu taxawee di jàng ba sëriñ bi yegg si noonu lañ ko fas yéene def itam euh, ba sëriñ bi dellu ci barabam loolu tam ñu fas yéene ko ànd rek ba weer wi mat kon loolu mooy li nga xam ne tey mooy programme bi nañ fi ànd ñu ngi fii ci kër sëñ Tuubaa gi ñuy dellu rek yeesalaat loo xam ni eh, lu jëwriñu daara ji nga xam ne mooy daara su tarxi di sëñ su Diop doon fàttali boobu ba tey gannaaw moom la sëriñ bi teg loxoom ci liggéey bi saa su ne muy def ay fàttali ngir nekkin wi ci biir saal bi ñëpp góorgóorluwaat ci eh, mesures yi nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy digle tamit. ñuy ñaan ñi nga xam ne dañuy yor ay ay téléphone ñu xam ne yëkkatee ndoo loxo bi di filmer ndoo xëy na su ma ñàkk moo gën ndax kenn ku ci ne teewlu moo tax nga ñëw fi ñu bàyyi ñi nga xam ne mooy télévision yi jox nañ leen signal bu neutre kenn ku ci ne booy transmettre sa signal nga ciy def sa logo nga ciy def kon liggéey bi bokk nañ kook ñëpp kon ñuy ñaan rek nit ñi bàyyi loo xel loolu ndax teewlu gi mu laaj. bu ñëpp yëkkateendoo seen téléphone di filmer dafa mel ne euh, dafay am na lu ko gën a jekk ci gis loolu kon ñuy ñaan ñëpp ñu sàmmonteeg loolu ñi ne ci saal bi ak ñi nga xam ne tamit ñooy war a ñëw ëllëg